donc mbokk internet Saloum ak ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay comme niñ ko daan defee si suñu émission yi Saloum Fajtal mm. tey nag dañu ñëw seet si fii ci euh, cité Fadia koñu pharmacie ning la yaakaar naa ne tey moom kii ñu ñëw seet si dootuñu ko présenter ci mbokk internet yi ndax xam nañ ko bu baax a baax muy seelu mm. mm. Habib Seck sëñ Habib ñu ngi lay nuyu di la ziar ok euh, soxna arama ñu ngi lay delloo bu baax nuyoo bi di wax أعوذ بالله الشمل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه مبكو انترنتو سالون فجتال نيو دي نيو واد لين زياره فين لين دون نيو تاي رك نيغي في تي تي فجا سونو كير شيخ حبيب سك دي نيانال نيب جام مودي بالا اخ دي زياره مبولم كليف ديني نيك تي ريومي فاشيني دوجو تي ليغي بو جافي ليغي بو دايوار ليغي بو bu bu naqadee leeral ndax ñu koy wax dafa bari wala ñu ciy wax boog dafa bari te bëri làmbatu comme sama classe bi nga xam ne jànguñu kon su ko defee ala kulli haal Rama ñu ngi lay nuyu di delloo kaddu gi incha allah ba laaj indi rek incha ñu fas yéene. incha allah kon nag ñu ngi commencé suñu émission ñu ngi fii ci mbokk internetu Saloum Actu. Mhm. ci émission Saloum Fajtal. Mhm. bisimilah sañ Seck. Mhm. ñu waxtaanee ci wàllum Covid bi. incha allah. barakallah fii que soxna Rama ñu ngi nuyu di nuyu sunu xarit sunu soppe may Maysa di ko ñaanal jàmm ci liggéey bu rafet bi muy def ñoo ngi ñaan borom bi defal la nga am télévision incha allah yow sa groupe bi. Euh, li ñuy commencé muy Covid 19 bi nga xam ne mën nañuy wax ne léegi mat na at ak du topp nga xam ne ni ñu koy tuddee moom mbas la mu wàcc ci addina bi du senegal rek <coughs> ñaare nag du fi lu bees. ndax gisoon ngeen fi lu ñuy wax pes beeg ñoom xeeti njàmbataan ak ngas ak euh, choléra beeg lu mu fi ak lu jiitu woon lii ndax dafa yàgg su ñëwaan nag mag ñi dafa am fu ñu daan taxaw fu ñu daan teg seen tànk ndax ñoom daanuñ jëfandikoo leneen lu dul alquraanul karim jamono nag dafay dox dox dox dox ba médecine bii nga xam ne muy wàllu docteur bi am ci xam-xam andi ba moo war a andi moo waral tey jii. daanaka ñoom ñi nga xam ne ñooñu ilif dañuy wax ne ñu daleen takk seen masque yeeg am na solo ñu ngi ñu ñu ngi encouragé ñu ñëpp di wax ne nañu fexe téye ko waaye ñun li ñu xam ñun muy alxuraanul karim ak li ñu mag ñu bàyyi woon dañ ko jàngalee mu lu leer loo xam ne boo ci tegee sa loxo rek alhamdulilahi rabbil alamin bismillah euh, su fekkee yàlla dafa dogal mbas dafa wàcc ci réew dalagul la xam na ay a jëfandikoo ba yàlla musal la ci loolu loolu dañ ci jàngale lu yaatu benn soo demee ci suratu saafaati da nga gis ayat alquran 103 aya 103 aya gis li ma lay wax ni da nga gis ben aya bu wax watallahu watallahu lil jabini waaw ta tombe lam asaqa watallahu lil jabini mag ñëpp d'accord nañ ni kep ku ko bindi sa yaram feebar bi la war ak bu mu mën a doon nag sa xat beeg tuberculose beeg mbasak bu mu mën a doon covid-19 rek lañ ko xam ñim xam ko ak beneen feebar bu mën a doon kon ba mu tënk koon a jóg na ñu si te allah yeneen xatti kanam dëgg dëgg yeneen xeeti feebar da ngeen garde loolu incha allahu taala watallahu lil jabini képp ku ko bind ci sa gannaaw wala sa yaram feebar bi wala yàlla da nga ne musal ci loolu du sa wax alquranul karim la benn nga jàpp sa baaraam ñaaral bi mooy am na beneen baat boo ma ngi dañ koy rahim ci koy bismi lahi rahmani. dañuy bind bismi ba léegi li kenn bu ko bind nan ko wala nga koy bind ci sa yaram da nga nan bismi bismi ba fiin mimara lahi alif lam lam asaqar mooy bismillaahi ya ngi dégg nga ne li yaqataa tarafan li yaqataa tarafan da nga nan bismillah li yaqataa tarafan rahman li yaqataa tarafan الرحيم ليقطع طرفا الله اكبر قسنا كو في تلفزيون يسحق غير ما غنينا ليقطع طرفا كو بيرس غناو وخلين دغل واي قم قم يوتي لي نكو عندك بسم الله الرحمن الرحيم لا بلو مو ان رك بارك الوجه واي حبيب سك مو مي لا امي قم قم كون بسم الله الرحمن الرحيم غاي جيل بولé كو لاي دي ni ko mundé nak moy da nga nan bismillah liyaqtahu tarafan rahmani liyaqtahu tarafan rahimi liyaqtahu tarafan nga dund ko ci sa yaram ak fu mu nekk ci feebar boobu mu ñaar ñaar ma ñëwaat ci troisième fois bi danaa ñëw ci trois ba ci quatre tey nga dégg xam-xam yu gaaw yoo xam ne teg teg teg teg sa loxo teg dégg gis xam bismillah beneen bi mooy dafa am ay baat yoo xam ne mu ngi ci alquranul karim pour ñu firi ko leneen la taaha taashim alif lam mim nuun alif lam ra bari day war la xamna sax ay fukki araf ak ñeent lu jigéen yoo xam ne bu ngi ay milliard ca ngay jaar alif lam ra keefal ku wér yaa inti attasi mi menam si xaf non allahu akbar way lu lenen la andi ñu ñew pour ñu mësu ñu ci bawar bi moy tax xajuk kon da ngay bind sowaratu sowaratu siin wow ra tasakar mbolem alquran 114 sari yi ban des suratu suuratu tawba lépp am na nangam suratul fatiha makara baqarah suratul falaki suratul nasi suratul nangam nangam dafay suara tu taha Wow, mana nekk ca Maryam mariam da bindaat suratu nun allahu akbar yasin kubu kubu ko bind sa yaram bi feebar du la wal ñett nga joxe naa ñett yoo ku waaw suratul mun boobu sax xam naa danaa si ñëwaat ci kanam ndax dafa ay mbir yu gaaw ci si kàttanu yàlla incha allah wa taala mu ñaar mu ñett mu ñëw si quatrième fois bi ñaan gi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko joxee mu ci àddis yi tuur yi yëpp andi nañ ko waaye la ca làmb moo garaaw billahi allazi la ilaha illa mën naa see jàngale fukki fan ci li ma bëgg a jàngale nii mooy bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul alim benn bindéef du ko jàng xëy jàng ko am loo naqari sa yaram bi amut amut léegi nag mag ñi bu ñu bëggee noppal ñoom dañ ko doon bind yëpp ci tam xarit wala ci premier weer wala ci fukki fan ak juróom wala ci fanweeri fan ak bind ko yëpp nangami yoon mooy juróom-ñaare muy surru ba muy mbon ma soo ma wooyee ma wax la lan la billahi jëmbind ko sept fois nga def ko ci paan képp ku ci naan mu ci sànni képp ku ci am ci sànni lii mooy yi nga xam ne jàngale naa ñeent xam-xam yoo xam ne su ko su ko nit ñi doon dund doo dégg mukk insha allahu taala hôpital nit ñi dafa rang beneen man la nekk dama bëgg nag ñu waxtaan ci xam-xam xam nga wax yi dafa bari soo ma fekkee sama kër soo ma wooyee soo ma seetsee bul taxut a toog Habib Seck fii man waxuma kenn waxuma kenn dama joxe xam-xam ku ko jëfandikoo gis kenn la ut parce que li may am yàlla nga ma koy jox maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah kon dama joxe xam-xam yoo xam ne pour bëgg dimbalante nit ñi kenn ku ci ne boo amee sirru wala xam-xam joxe ko te nga bàyyi woote bi wa sallallahu wa sallam ala muhammad ma ñëw nag ci ñi nga xamne ba legi ko def sax benn ma jàngal ko ci alquranul karim la benn laaya bo xamne mu ngi suratul yunus allahu akbar ñi ko ñaanal yalla borom bi jox ko katan ak fan muy serigne mahi bu baye dégg na mu jangale ko barki dem wo ko ci ci ci ci ci nak bi la ko gis suratul yunus aya 98 vingt dix alquran la jo xamne ne billahi mën naa tukkal ci tool boo dégg rek àddina waaw yaakaar fi Iran seen xeex ba ah léeg yi xamul lu ñu lu ñu tourné ko wallaahi ko wax xumay ni kenn bar naa farla xumay ni moom yal ko yàlla bi jaay sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi laa jal laa yàlla fa lawla kaanat qaryatan amanat nafahaha ila qawmi yunusa لما آمنوا كسفنا حنوم الحساب الحسي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى هنا آية آية لبقى نمو سورة يونس كتر فين ديس ويت آية جوم من فك أجر نك آية بني دي ملا يوحني دكو جانج فكيرك بان ولا سنكان سنك ولا بني يمبرسور مكي مكي أمو تلك بجانج رك إن شاء الله تعالى يا كنا بلو جيخي دي مني نيواتي سورة ملا يبونا بنا نغيري بمكي كيلولو kon ma bàyyi la kàddu gi incha allah taala ñëw ci deuxième partie bi. waaw a ah allah mbokk internet ak waxtaan bi am na solo lool lool lool. macha mm-hmm. allah. Mm-hmm. Euh, képp ku ci bëgg a mucc daal boo duggee Saloum Actu déglu sëñ abib Seck. incha allah di mm-hmm. nga déglu tegtal yi mu ci joxe. macha allah am na solo lool ci Covid bi ndax Covid bi la mel ne àdduna bi yëpp yëpp yëpp ci ñaan suñu bopp yal nañ ci yàlla musal musal ci mbooloo mi jullit nag. àdduna bi yëpp mu musal leen ci ñi daal yal na leen yàlla yëkkati. delloo leen seen i njaboot ci barke Seydina Muhammad alayhi salaam